borom xam-xam lislaam yi dañoo xaaj ziyaara ay bàmmeel fi ñett bi jiitu mooy ziyaara bu sharia nangu boobu ziyaara mooy waajoo xamante ni dafay ziyaare ngir fàttaliku ci àllaaxira waaye ñaanal ñafaatu beneen xeetu ziyaare mooy ziyaare boo xamante ne moom bidda ala mooy waaj dafay dem ay bàmmeel ngir sàkku ñaan yàlla ci wetu bàmmeel yooyu le ñetteel bi mooy ziyaara bi nga xamante ne bokkaale yàlla la mooy waaj dafay ziyaara ay bàmmeel ngir ñaan nag ña fa tëdd loolu bokkaale yàlla la waaye tamit ziyaara ay bàmmeel bi sharia nangu tukki waru cee nekk waaye tamit doomu adama tamit waru faa def lenn lu wuuteeg lislaam kon yi mooy xeetu ziyaara ci lislaam kon ñun mënuñoo def dara ci wetu bàmmeel la nga xamante ne lislaam dafay ñëw di ko dàq